Euh, dal leen ak jàmm euh, dalati leen ak jàmm lañ leen di wax mbokki internet yi mën nañ ne ci kaw kii di Aziz Dabala la ñuy daal di dellu soir rek ak ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye mbir mi nga xam ne moom moo ci bees boo ñu toppee ñu dégtal la li nga xam ne rek moom moo ci gën a fës jamono bii ñu toll nii gannaaw sulli gi nga xam ne rek doon nañ ko jéem a sulli ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ba tableau ba ñu daal di koy dindi ba mën nañu sax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di takk der yi ña nga doon dànkaafuwaat ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ay garde du corps ci fi nga xam ne rek moom moo di armeel ya mën nañ ne nag ci mbir moomee lañ fas yéenee daal di dellusiwaat ànd si ak yéen ci li nga xam ne rek moom moo gën a fës ci ay leeral ci jamono bii ñu toll nii parce que tamit kaawu Aziz Dabala bis bu affaire yi demee ba gën fës ba leer naññ dina bari ñoo xam ne dootoo leen dégg te dootoo leen gis selon ki nga xam ne nag moom moo di jimboor yi ndaxte dafa am loo xam ne moo garaaw ci kaawam mooy ne nit daf ko fekk ci këram ne ko tey dinaa la jële ci kërug duniyaa yóbbu la ci kërug àllaaxira par force te mbir moomu nag mën nañu du nekk loo xam ne lu neex a dégg lay doon ak nu mu mën a demee dee na dee xam ne dee gu méttee méttee la ndaxte dara gënul metti ndey dund xam ne sa jur mi ngi dund say frère ñi ngi dund gouvernement mi ngi fi way takk der yi ñi ngi fi xam ne ñii nga xam ne ñoo may def lii am na si ñoo xam ne buñ fi teewoon duñ ma ko def ñu la koy def ngay xool c'est très grave di mbir moo xam ne lu doy waar la loolu nag bu amee ñu gis ne loolu lan moo tax ñu def ko loolu nag mën nañ mooy li kenn xamagul ba jamono bii ñu toll nii te mën nañ ne buñ ko bëggee xam tamit mën nañ koo xam mooy lan moo tax moom Aziz ñu def ko loolu parce que moom Aziz Dabala est-ce que am na benn mbir moo xam mooy ne moom depuis mu génn àdduna ba léegi dafa am benn mbir boo xam ne mu ngi commencé di daw lu bokkut ak rayu Dabala maanaam film boo xam ne mi ngi daw bu bokkut ak rayu kii di Aziz Dabala c'est-à-dire liñ bëgg expliquer mooy moom Aziz ñan wala bokk bi muy dund nekk fii nii ñi nga xam ne dafa collaboré woon ak ñoom siq ak ñoom lien ñoom ak Aziz Dabala naka la demee woon mooy ñi nga xam ne séqoon na ak ñoom relation pour man bi Aziz di dund daf leen a jàpp mais ñoom jàppuñu Aziz parce que tamit bu ñu xoolee dañuy gis ne dafa am ay artistes yoo xam ne ñoom la seqaloon lien parce que soo bis bi moom yaakaar naa ñëpp comprendre nañ ko mooy li ñu wax rek link la tey ñi nga xam ne duñ ay linkam sax gis nañ ne ñëw nañ jaale si waaw parce que gis nañ ci ko ci mel ne Waly Seck parce que même Waly sax daana wax ne moom soxla na ko pour mu ñëw feccal ko lan moo tax moom bi mu génnee àdduna nag ñuy soog a xam ne Aziz ndaanaan la parce que am na ñoo xam ne xamoon nañ ko mais bi mu génnee àdduna ak yeneen ndaanaan yi nga xam ne ñu ngi génn pour wane ne am na luñ bëggoon a séq ak moom ci ngay soog a xamee que ni moom ndaanaan la woon ci li nga xam ne la nekkoon parce que loolu fi muy gën a mooy ci wàllu répétition ci not yi ci temps yi parce que nekkul moom yëfam daka daan def tëbal ma tëb donte le nag gëstuwuñ ci wàllu côté boobu wante tamit moom bi mu làqoo la yu baree baree bari ci ay mbiram commencé di feeñaat ndaxte tamit boo defee si remarque bu baax a baax a baax a baax da xam ne kii am na lu xew ndaxte boo xoolee bi muy fecc kili bu kumba gawla bi sol yére baay faal bi di jox gaa yi not nat la ñuy tëbee nan lañu war a àndee spectacle bi naka lañu war a def chorégraphe bi yëpp yëpp yëpp boo ko xoolee gis que ne kii dem na ba def lii nii métier ndaxte mbooloo bu ñu àndee kenn wax ñëpp bëgg see d'accord wala boog ñëpp sax d'accord si mu répété ñu gis ko mu def ñu gis ko spectacle boobu dafa mel ne lu rafet rafet la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy suivre ndaxte moom boo ko masaan a jox son xam nga ne son tey wax moo tax nag ay manière am maanaam manière li ngay way maanaam démonstration bi moom noone la koy la koy defee parce que dafa am loo xam ne tamit ay wax la ak ay parole maanaam ay ay wax la daal laa ci bëgg jublu kon nag moom dafa am leneen loo xam ne tey moom moo nekkoon ci gannaawam moo tax nag dafa am ñoo xam ne tey dafa am lu ñu waroon a def te defuñu ko ndaxte tamit pourquoi ñu gis ñen nag ci ñi nga xam ne mën nañ ci ab néew lu ñu mënul ci kiy dund waaw non am na ñoo xam ne ñu mën néew lañ wante kuy dund moom mënuñu ci yow lu bari ndaxte tamit dafa mel ni Aziz bi muy dund ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale maanaam ñu génnee àdduna ñi gën a fës ci gannaaw gi di ko jàppale ñooñu ñoo ëpp fuuf sax parce que tamit loolu li la koy wan mooy Aziz bu demee ba bokk natt am na ñi ciy wax di wax ne dañuy yeggale mbébétu Aziz di wax na ci natt la ko sosoon pour def loolu te loolu nga ne yow yàgg na laa liggéeyal est-ce que kooku bu ko joxoon li mu ko waroon jox dina dem di bokk ay natt kon yooyu tamit nekk loo xam ne tey lu jara jara jara bàyyi xel lay doon moo tax nag bu fekkente ne mbir mu ñaaw mi nga xam ne tey ñëpp ñoo ko nemmi kondoo moom mooy dem ba xëy un bon jour ñu ne kat lii nga xam ne moom moo ko dal maanaam ña nga dem bay sulli ji li nga xam ne moom moo di ab bàmmeelam ci yu ñàkk fula kënekat moom mi dafa am leneen loo xam ne tey ñi ngi ko koy jiiñ bu fekkoon loo xam ne tey luñ am ay preuve yu leer nàññi la su boobaa mën nañoo jàpp que ne lii ñi kat dëgg la mais nag a général ñi nga xam ne dañ koy tuumaal bay bëgg di sulli bàmmeelam walla ne du nekk fii dana fi nekk jàppal bàyyil amuñu ci lenn lenn loo xam ne tey lu leen leer la moo tax nag dafa am loo xam ne tey war nañ koo leeral ndaxte tey mooy ñi fa dugg waroon nañoo xam convoi bi ñu def ak naka lañ def ba dem fa ak nan lañ def ba xam kër geeg lan moo tax ñu rey kook luñ ci jubloog lan moo tax ñu rey ko reyin wu ñaaw boobu yooyu yépp dafa nekk loo xam ne tey ab link daal Euh, am na ci mbir mi daal parce que ñoom it ku ñu ñu man ñu man ñu man néew lañ daal ci liñ ci liñ mën a wax donte ne nag gis nañ ay artistes yu baree bari yoo xam ne tey dem nañ fa waaw jébbal seen jaal wax seen euh, ay kàddu yu rafet wante tamit taxul ba jamono bii ñu toll nit ñu gëm que ne affaire bi daa war a sedde noonu waaw ndaxte nag Euh, bari na ñoo xam ne tey loolu mën naa am wante lu tax ñu ànd ak 100 pour cent ñi nga xam ne tey ñoom ñoo def mbir mi donte nag ba jamono bii ñu toll nii amagul lenn lenn loo xam ne tey lu leer la ci li nga xam moom moo di ay mbiram wante kat ak ñaaw bi nga xam ne tey def nañ ko moom moo tax ñu baree bare bari jàpp que ne dañ koo rey rey nu ñaaw te tamit jàpp nañ ko ne rey gi nekkul loo xam ne danga nga xuloog nit tey suba nga ñëw rey ko ndax nit boo ko faatee tey ba mu faatu doy na mais nga def ko loolu continuer di ko jamate am na ak soxor goo xam ne tey moom moo dugg ci biir mais grande question bi nga xam ne nag moom la ñuy posé mooy danañ janoo ak procureur muy Nabou Leye ak yeneen personnes yi nga xam ne tey jàpp nañ leen ndaxte tamit normalement am na koo xam ne suspect la mais ba tey euh, dañ ko bàyyi woon mu dem moo tax nag amul woon benn communication boo xam ne tey bu bu leer la ak division d'investigation criminelle léegi nag li nga xam ne moom moo am actuellement mooy ñoom dinañ jàkkaarloo ak ki nga xam moom moo di procureur léegi nag lan moo war a nekk suy fekkente ne jàkkaarloo nañ ak procureur ba pare parce que tamit war nañoo àtte li nga xam ne moom moo di seen toor te tamit renvoi mën na see am ndax élément yu baree baree bari ba jamono bii ñuy waxee ak yéen dajaloogul ndaxte bu ñu fàtte ne kat affaire bi affaire u la maanaam euh, du nekk loo xam ne tey lu yomb la te tamit du nekk loo xam ne tey lu ñuy régler ci benn fan la wala ñaari fan donte ne nag gis nañ ñu baree bare bari ci li nga xam ne rek moom lañuy fësal mooy mbir mi moom dafa nekk loo xam ne lu mënul woon a ñàkk la am na kon nag ndoglu yàlla kase kase lañ ko mën a jàppee kon ñi ngi leen di jaajëfal ci topp gi safa gi ak faale gi seen chaîne YouTube Partout TV jaa ngeen jëf